borom Touba gi ñu naan yaay wutaatu yool ma ka cig defaree kuy sikki sàkkaree jagleeg Sëriñ Touba Touba Touba borom Touba gi ñoon naane yaay wutaatu njol makk ci defare kuy sigi sakare borom Touba ataaya kafe taalaale baawoon xamuñ ko woon daxara xorom lañ daan maxal door xëy tuuba am place ca ga tisbaari jeewal ja ja moo waral tubaab ba naa suufam si kuñ fi lan ko jox daay ma jol makka naan ko makka foofa ngeesu gis ma asbaari jeewal jeewal ci yow mal sabte la Sénégal am sam mu rëy fa bayte asbaari jeewal jeewal ku fa mon dim fi nge kon réew mi ñee firaw na ak fii gëm nga isbaari jeewal nga ku fa moon dem géej kon réew mi ñee firaw na ak fii gëm nga tisbaari jeewal jaari ci yowmal sabte la Sénégal am ndam am lu rëy fa béyti mu bayti mu bayti bam taxawee fa bëm nga gis na leeram géej ju maya nan ko bambal gënal kër nga kër nga Sëriñ Tuuba suñ bam taxawee fa bëgg fa bëgg gis na lërëm ga yu maya naan ko bamba ginnal ker ga ginne ya booloo naa ko noo am doole fii ki tuuba doo fi tabax juma tabax ju xas di xoole ginne ya booloo naan ko noo am doole fii doo fi tabax juma

suribtu kawsal xawmi fubsin gaaya xanaa xamul ka jaaxaloon sa kiin gi labbaya waa roxban ni xutbu diin gi xanaa xamul ne bamba naan na kaas yaa suribtu kawsal xawmi fubsin gaaya xanaa xamul ka jaaxaloon labbaya waa dox bànni xuddu génne biraasu man ah! baara sini ko ah! ne kon nu boole seen boole seen ñëwee ko biraasu man baara sini yuruñ ko ne sëriñu maam Seex Ibrahima góor waaju la gàntoo ñàkk mbóor ku wal dugg ku wal mu des ca wóor moo di ñeeleere jébbalu jébbalu ëllëg la mbir yëpp di leer ndab laa ngi nii amul ku beer ku lekk naan ba man di teer ca aljana ku jébbalu ku jébbalu sëñ Touba Touba allah la leer ndab laa ngi nii amul ku beer ku beer ku lekk naan ba man di teer ca aljana ku jébbalu ànd ak sëñ na mbaax doy na mbaax ànd ak borom Touba doy na mbaax doy na mbaax ànd ak borom Touba doy na mbaax ngir moom rek attan li nga bu ko safee keneen lu baax ñëwal ba Touba di bundoo sëñ Bamba bundoo sëñ Bamba bundoo sëñ Bamba bundoo sëñ Bamba am nga jaloore ak i dam ah. dam ku naw sa baa sin na fa dem sin na ah. fa dem ànd ak tubaab yooyu ba xam ba xam bu ñibbisee ñu jëm ñu jëm njaloore ak i ndam ku naw sabaatin na fa dem ànd ak tubaab yooyee ba xam ah. boo ñibbisee nu jébbul am nga sifaatul kabiir yonent bi moo la jox lu wóor moo tax nga woote tax nga woote ñëpp buur adduna sépp yi jébbulu borom tuuba tuuba am nga addina laaxira borom Touba am nga àddina ak laaxira yaate yaate nu tabbi sawara tabbi sawara defal nu wér ak sutura yow Bamba ñun ñu jublu xam nga adduna ak laaxira yaate yaate defal nu wér defal nu wér ak sutura yow Bamba ñun ñu jëm bu